Dakar, notre plateforme d'information. en personne madame Linguère est-ce que tey jii ñu mel yow jàpp wax nan da yëguma ko woon. yónneewuñ la ko. wallaahi yëguma ko non yëguma ko woon léegi nag ko fay bay wax ci du la yëg man du ma la du ma la taalaat bàyyi noonu. lan moo nekk sa problème ak moom. dama koo xam non tey yëguma ko xam nga ko fay nag sëñ Baara moom day bëteelu essence la daal day taal parce que boo waxee ci man xaf ko day am ay vie man bu ma waxee. ci yow day am mu ngi wax ñu koy seetaan dafay yóbbu man barke borom Touba yëguma ko kii o ma ko wax. Hmm. grand journaliste nag bu demee ba mën a tararari ci man mii nga xam ne ni ma amee jot. <laughs> waaw yaa ci saako bi waaye. Mm. barke sëñ Touba yëguma ko. ok man dama jot de. Mm-hmm. man da ñëpp laay xool damay seetaan ñëpp laay seetaan ba ma paree toog. <laughs> léegi nag comme moom moom fay na. dégg na continuer rek. est-ce que doo ko taal tuuti rek. barke sëñ Touba na fàttaliku rek bis bi mu njëkkee toog ci télé di ba attaqué. Hmm. ak tey jii rek na xool ñaata la arrière te bu ma bàyyiwul. Hmm. <laughs> baax na man damaa diwoo dara de. est-ce que ay tëkku la loolu. de tëkku wu ma ko man damaa diwoo dara. Hmm. man. <laughs> baax na <laughs> man daal ku ma ku ma bañ te nëbboo ko majal gi lekk la barki Sëriñ Tuubaa la dañ laa war a bëgg rek daal déedéet du loolu ah. man jotewu ma kenn dara maa ngi sama jàmm ba ñu ma kenn yàlla may faral ah. bu sa xol setee ta leer ah. yàlla ci boppam moo lay faral ku la bëgg a toroxal yàlla toroxal ko duy ndomba duy téere xol bu set dong la wallaay tam Aysatu man sama nit la sax aw ma ak moom problème du ma ah oui moom benn problème bu ma xam nii uh-huh. dégg nga mais nag daa fay man du ma wax ci man <laughs> alors libération fu may ba pare damaa nuru sax ku bari bor kan moom hmm. ah nga jàppale ko rek comme sa jigéen la ay bor yi kenn est-ce que est-ce que mën a fay <laughs> xam nga bor yoo xam ne bi nga koy leb da nga yaakaar ne doo ko fay doo ko doo ko leb ndànk waaw da ah, moo tax Hmm. <laughs> nañ góorgóorlu rek. d'accord euh, fu may terminer euh, fu ñuy terminer sax laay wax moom mooy euh, libération imam ndaw ak ki nga xam ne moo di Bah Diakhaté ñi ki démb bàyyi nañ leen ñu ñibbi seen kër ban taxaw lu nga ci def. ah mu taxaw seetlu kay léegi kay boo tëddee ba mu jeex kay da ngay ñibbi nag. Mhm. ok laa ci seetlu rek. liberté eh provisoire. déedéet seen peine moo jeex de. lii dañoo libre. Mhm. waaw fu leen am na yeneen dossier yu nekk en cours. ah non dossier yi nag dañ ko cee benn bi lañ ko ci defaat euh, kii DPA xaw ma la dañ koo setal uh-huh. en tout cas daal tooñ na tëdd na penam jeex na uh-huh. bu tooñaatee tëddaat bu tooñaatul di dox soxlaam uh-huh. rek la man nag bu ma doon am naa am naa am naa conseil pour imam am naa conseil pour bàjaxat xam naa nag duñ ma déglu ndax ñoom bëgguñu ma waaye nag mën nañ maa warmal daal déglu li ma leen wax nii bu dee imaam imaam moom day def day def day day day tabax loo xam ne ci moom moo moom moo opté di dugg ci yoon woo xam ne nii bëgg a dund ci yoon woo xam ne maanaam di feeñal mbañeel uh-huh. ci lenn maanaam da koo jigut uh-huh. ba pare tamit rawatina nga bëgg a dugg sóobu ci mbeddum opposé wu uh-huh. xam nga sax di nax mareem mu lay mosal dara ngay wax noonu mu lay mosal dara loolu baax na ci imam waaye dugg ci tànki sonko mu lay yàpp yóbbu kaso ba a ñëw te mareem yoratul lum la jox loolu baaxut ci imam bu ma doon mooma daal ma nekk imam bu digg doomu ma ca wasatiya te bàyyi euh, jeng jeeg taasub geeg yenn kafin yi moom ma teg ko nele uh-huh. waaw bu dee baa tamit wax dëgg yàlla baa euh, am na lu ñu yàlla boole tuuti sax maa ngi moom xam naa ko uh-huh. xamante wuñ mosuñoo gisante mais am na luñ bokk daal uh-huh. loolu jorul ñëw ndeysaan mais damaa xam ne ay ponkal yu sàcc seen i milliards denc ko fu wóor ba noppi ñëw ne la xeexal ma nga leen di xeexal ma nit bu ma doon mooma du ma ko def parce que parce que waa moom Euh, baadaa su mbuum fóot moom mënut a fóot jaru Macky Sall bi wallaay kenn mënu koo fóot. Mhm. Macky Sall bu deram neexut a fóot waa APR ay tapet lañ ay sàcc lañ sàcc bu tapet nag mhm. boo dee jàmbaar de ànd ak yow la ñuy saraxe. Mhm. ay sàcc lañ ay tapet lañ man maa la. ay sàcc lañ dafa benn ñëpp ay sàcc lañ ay tapet ma ne boole ci bon sax. waaw ay sàcc lañ ay tapet lañ man maa ko. est que waa affaire bu ñu booloo defal la plainte sëñ bi. aywa ma wan liñ sàcc wane fi ñu tapete. nga génne preuve yi. wane preuve wane na sàcc lañ preuve wane na ay tapete lañ laa leen di wan tapete lañ ñeme wuñ. alors cheikh bi. wallaay doon def maanaam virgule ba ñoom ñeme ko. Mhm. sàcc bu ñeme amut. sëñ Ba ñooñu nga dippee ay sàcc tey jii ñoo booloo muy BLD muy bloc des libéraux démocratiques. takku ñoo ànd pour euh, créer benn coalition bu mag Idrissa Seck i Sall ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay libéraux ak PDS aussi daañu fa dem moo ko wax euh, coalition bu mag ndax ñu ngi jëm ci élection législative ngir mën a occuper l'assemblée. Idrissa Seck nga wax ak kan. Idrissa Seck. Mhm. Macky Sall PDS APR. PDS de gëwuma ko moom. Diagne Fada moo ko wax. Diagne daa mën a fen de. jaañ fa de jaañ daa mën a fen ko mën a xam naa ko bu baax moo ma yar daa mën a fen ko ñeme yàlla la fii ne boo demee xel li mu bëgg lay wax rek. waaw waxewul ci moom APR ak PDS bu ñu doon bokk moom ci kan la ci far. ah ma jaañ fa de la bokk wala PDS. PDS. du du moom kay libéré wut dara. ma ne wut dara laa wax nga naan ma libéré jaañ fa de sax xamut fu. ma ne déglu rek jaañ fa de loolu amoon. moom amut fu xamut fu mu bokk jaañ fada bëtam bépp mi ngi ko teg ci nguur gii moom du opposé wul kenn xamut xamut luy opposé wul ah. ay kari non man xaaral moo xam la jaañ da may déglu moo xam la jaañ maam moom man xam naa ko bu baax fii lay politique jaañ fada du opposé wul kenn trent minutes joomaay yëf ya rek waaye bu maanaam waxam yëpp man nu mu buruxloo ba dugg fee lay wër kon jéem na tànte pour dugg oui non xam naa ko Diagne ànd na ak ñoom Abdou Diouf ànd ak ñoom Ablaye Wade ànd ak ñoom Macky Sall ah ku ko dese ñoom Diomaye da ngaa kan day opposé wu opposé moom ci boppam day fen ci loolu ñoo xam dañu nekk pouvoir. ci hmm. élection législative bi. te libéraux yëpp ma wax la dara. barke Sëñ Touba ñoom ñëpp buñ ñu àndee. du ñu am juróomi député. Mm. barke sëñ Touba Mbacke. barke sëñ Touba laa wax. Mm. bu ñoom ñëpp booloo micro sax bii laa yoroon. PDS réew mi PS xaw ma jàmm gën ak ayak nangam nangam ak xuru Mbacke ak xuru Kaolack ñëpp booleel. ñoom Khalifa Sall Khalifa Sall ak ma ma dikkee ñaak kun laa wax kay ñëpp. Mm. boo buñ booloo ba pare buñ amee juróomi député santuma Ndiaye.